jël mooy Wily. Wily maa ngi jël. doo mu jël nag. waaw Wily doo def ndànk ma jël. waaw jël ma ndànk. mais Wily yow foo sañ si. bàyyi sama sër yi Wily. Wily yow lii dafa toj dafa nickel. waaw doo joxoñ rek ngay ubbee ak ak. di tëj ma damay da <laughs> defal daal amoo jóg da lay rey de <laughs> nee na dafa lan. da nga poté. ak lan. coofet doore. ak xanaa yow star nga naroon doon mu rate. non du ma star superstar laa. ah suba star ban supp nga mës a naan ci star yi. yooyu. Ah. duñ ko wax ci tele wala rajo. ah eh, lañ ko jël. wili koo bëgg. yow yaa ma gën a xam yow laa bëgg. foo ma def. fii. waay eh tàcc leen wili waay mais wili koo bëgg. man ah. yaa may daaneel. foo ma def. foofa kenn du ko lijjanti. ba tax na fi mu nekk nii Willy dama koy wax mu nuyu ci ku ko neex ci biir Philippe Ndour bi nee naa la xale boobu nit ñoo ko bëggal seen bopp promotion kenn defalatu ko kenn góorgóorlu leen promotion nit a koy xoolalutal boppam Willy koy nuyu ci Philippe Ndour bi. gentleman yëpp ñi mu bokkal nekk Colobane. mais lan mooy tax nit doon gentleman. gëm sa bopp di dóor waar doo sàcce doo fen doo triandé ah. loo am rek doyloo ko. xam nga bés. waaw moom lay bëggee. su ma la ko mayee nooy naan ko ba tëj bouteille bi. déedéet bopp bi dégg waaye wili yaa sadik am yu ko dafal ndànk rek. ah <laughs> ndànk ndànk ma si suuf. hors antenne waaye wili yaa bon teel nii. yaa ma gën a soxor. wili naa na ma. dama la yàgg xama rek benn instant nii du lépp la ñuy wax. ma dama yàgg a yàgg di la xama di la teg choc. yàlla dogal tey ñu doo a gisee. mbëkkante nañ te wili man xolo xam nga fu ma la def xolo fii ba tax nee naa leen émission bi ni lay demee ñu bàyyi Philippe Ndour bi jàll ñu ciy nuyu Aji Binta Rakunda depuis Paris ba tax na Aji Binta xam nga fu ma def xolo fii fii yaag bébé ndaw fii. non non non munuñ ci dëkk sonn nañ bëgg la ñu war di bëgg non non dëgg foog nit du lëgg non non du béy baagun di dundee dëgg dëgg sonn nañ àll ba ngi daay kii na jaay woote nee nañu dëgg nañu sëgg dëgg dëkk yi ñu rëgg fu ne ñu bëgg ñu bëgg jëm kaw def ci ndaw la moom mi ñu ci xam fu ne la fa di bonde di bonde di jàlle di fu ko dal fu ko neex bari gel tax ni nga ni nga dogal bolo si xel ñu leen ñu ko jëng jara jara bëri yàlla yàlla melo fit fit wala xale bët bu di feeral waxu kese fii mooy Sénégal njaay lay demee ba tax na Philippe Ndour bi di dox nee naa leen promotion kenn mayetu ko kenn dañ koy judduwaale muy dox ci yaram ba tax na ko koo koy toj muy Philippe yow e eh, ko ci nuyu man maa ngi ci nuyu sama yaay ak sama pap bi gaañu di ko jaale ak ci ko nuyu sama xel mais est-ce que xam nga yaa ko corote yow mi yaa ko ah mais noonu la rek yow koo bëgg man ah sama gel bi koo ko def fii fii fii nee na na ñu jàll ci keneen ci Philippe na nga def maa ngi fi koy nuyu ci Philippe maa ngi ciy nuyu sama sama papa doom Moussa Mbaye maa ngi ciy nuyu ñëpp. maa ngi ciy nuyu ñoom Zal ñoom ñëpp sama yaay sama papa. koo bëgg ak yow. koo bëgg. <laughs> maa ngi bëgg nga may ma moo sama. déedéet may naa la Philippe Ndour mais kan nga def ci sa xol. Moussa Mbaye. foo ko def sama biir xol. xoolal Philippe Ndour bi foofu lañ koy yemalee jàll ci beneen clip yow koy nuyu ci Philippe Ndour bi borom bés. di ci nuyu ñëpp. bàyyiwoo kenn di ci nuyu Pape Tall borom bés bi. yow koy nuyu ci Philippe. képp ku dëkk Thiès maa ngi la koy may. bàyyiwoo kenn bàyyiwuma kenn. mais yow rafet nga de. ah yaa ma dàq. mais reet ana. <laughs> eh kii di yuux sama tur bi kan. tourneel. man daal ku la bëgg laay. man daal ku la sopp laay. ah. rythme. kiis. émission bi dafa rythme ndiis Amina Poté. dama bëgg ci yow. waaye mën nga wéy de. mo damay jàng rek. naa la bés bi sa bi gën a neex. Ah. ci lii. wéyal bés. bés su ko soo ko naanee yi soo ko naanee yi da ngay ànd ak côté. <laughs> mais yow su ma juumul sa saag bii nga téye rek def ci sa 100000 francs woy foo dem génne benn. maa la ñamal loolu côté xamal lii affaire ngéwël la te yow da ngaa ñëw si géwël yi. da ngay waaw da ngay mër da ngay mër dama léegi nag fi mu nekk nii émission Rich Mon Djizz foofu lañ koy euh, Philippe Ndour bi foofu lañ koy arrêté mi ngi may ñoppatee de waaw ma ñëw. jël nanga ko Richmond Djizz nee naa leen nii la demee leen xoolal clip yooyu jot a leen jël leen seen garde waa presse aar ñoo koy daggate temps yi xoolal li titi defati ci jamono ci maam Abdou Aziz bu baax e na titi dox ma nuyu ci ku ma neex koy nuyu ci titi bi. maa ngi siy nuyu sama chéri koko. sa talbo moo xew. sa talbo laa koy may. ak ak goro yi nekk Thiawane ñëpp maa ngi. naan sama belle sama belle yi nekk Thiawane boog maa ngi leen koy may. ak sama maman. ak sama sœur est-ce que xam nga bes baña lu muy def. ay defar yaram. bu sa alaaji wàccee nga jox ko mu naan. bu wàccee camion yi la ñuy dawal. ah mais nga jox ko. léegi ni Fatick wàccee Fatick maa bi. a ah. maa la ko wax ba. waxal refroidissement ji. refroidissement ji. naka. refroidissement ji. waxal kilo bas. kilo bas. ba tax na fi mu nekk nii nee naa leen jël leen seen garde titi baa ngi noonu di doxantoog yéen. kilip ko ci fulla ñu way ko ci fulla son yi di doxantu ci fulla ngeen koy dégg xola mu leen di. yuuxul. bilaay bàkk naa la. yuuxul bu baax. yow daa nga.